wala hawla wala quwwata illa billah ya himmat cheikhi uhduri lana bi hada almahdari wal taatafi bi nadratin taati lana bi dafari <coughs> ñu ngi ñëw ci suñu darsu nasiha léegi incha allah ñu ngi ñëw ba léegi ci miskin mu ne al miskinu al maaniyu bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan waxshurni fi zumratil masakin yonentu ko waxoon mu miskin ci maana mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi doon wax na yow yàlla nanga ma dundal ma nekk miskin nga rey ma nekk miskin waaye nga dekkil ma itam ma bokk ci dégg nga euh, mboolo miskin yi masakin yi woy ñàkk yi dégg nga mu ne miskin boobu liñ ci jublu mu ne huwa mahallu nazarullahi min xalqihi mu ne mooy ki nga xamante ne ci moom la yàlla def te jël lii ci moom la yàlla feeñ di xool jaamam yi loolu nag maqaama bu kawe kawe la parce que kooku moom mooy alqutbul jaamia kooku mooy xalifatullahi fi ardihi parce que ci moom la yàlla di rusee yaa ngi dégg mbindeef fii ci moom la yàlla def te jël lii dégg nga euh, euh, euh, maanaa di xool jaamam yi ci moom yaa ngi dégg moom la yàlla doon wax ci xaq yonontu du ma leen mbugal mukk feeg Muhammad a ngi seen biir duma leen mbugal mukk feeg ñu ngi wax astaghfirullah dégg nga su ko defee kooku nag nga xam ne moom lañ tuddee miskin dégg nga kon ndeke miskiin ndeke ni ko suufiyanke yi jàppee miskinu yàlla bokkut ak ki nga xamante ne dégg nga moom lañ jàppee ne moom mooy miskin dégg nga parce que ñun ki jàppee miskin mooy ku amul dara moo ko xam ne dafa nduul moo ko xam ne amul yëre yum sol sax torox dégg nga kooku lañ jàppee miskin ndeke déedéet miskin ci xàq suufiyanke yi de nga mooy mahallu nadurullahi min xalqihi mooy jëmm ji nga xam ne ci la yàlla feeñ ci moom di xool jaama mi lu mel ni ki Baye lu mel ni ki Cheikh Tidiane lu mel ni ki yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne laysal muraadu al fuqara al muqillin mu ne liñ jublu ci miskin duut da nga woy ñàkk yi nga xam ne dañoo néew la amuñ dara dara dara déedéet mu ne du ñooñu dégg nga mu <coughs> ñëwaat ci waxu euh, allamatu hajjuji mu ne laysal muraadu minhu su'aalal faqri wa qillatil maali mu ne liñ jublu ci miskin nammuñ ci da koo xamante ne dafa ñàkk dafa néewle alal da nga yoru dara déedéet balul muraadu tawaadu bayna yaddayillah mu ne luñ namm ci miskina ab yàlla moo ko xamante ne dafa toroxlu ci kanamu yàlla wala iftiqaaru ilayhi koo xam ne dafa ñàkk ci kanamu yàlla da nga iswatan bi hadis eh, jaddihi rasulullah sallallahu alayhi wa fekk Cheikh Tidiane yi mu ngi topp wala mu ngi roy hadisu maamam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam haysu qaala dégg nga hadis boobu yonentu doon wax ne innama ana abdun dégg nga aakulu kama yaakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu sallallahu alayhi wa sallam yonentu mu ne innama ana abdun xanaa xamu leen man jaam rek man jaam rek laa aakulu kama yaakulul abdu man damay lekk ni jaami di lekke yaa ngi dégg wa ajlisu kama yajlisul abdu damay toog itam comme ni jaami di tooge rek na ngeen xam ne man jaam la dégg nga jaam nag dégg nga Abdullahi waxoon naa leen fii ne du du du firi mukk dégg nga Abdullahi bi ngeen xam waaye dëgg-dëgg Abdullahi mooy ki nga xamante ne moom moo gàddu mbootam yàlla mbootam yàlla ma ci moom la nekk kooku mooy dëgg-dëgg Abdullahi dégg nga li la koy jàngal mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baayam Abdullahi la tuddoon waaye kero bi nga xamee ne Abdullahi dégg nga ànd na ak Aminatu dégg nga amaanatul kubra bi nga xam ne moo xaqatu Muhammad yee nekkoon ci Abdullahi dem ci Aminatu waaye bisu keroog dégg nga ñaari weer ci topp rek Abdullahi génn àddina waaye da gis ne Abdullahi moomu génn àddina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwaatee war a daje ak boromam boromam daf ko tuddee turu baayam subhaanallazi asra bi abdihi tudd naa sell ak dégg nga eh, sama jaam bi nga xam ne man maa ko rañaanee kon dëgg-dëgg Abdullahi mooy yonent bi parce que jamono jooju nag yonent bi. mu ngi dem ci pay yàlla bi ba mu demee ci pay yàlla bi yàlla yenkiwal na ko ay secret am yenkiwal na ko ñetti xam-xam kon ñetti xam-xam yooyu yonent bi yoroon ci dënnam di ko dund ba mu nekk jëmmi xam-xam loolu mooy Abdullahi kon dëgg-dëgg Abdullahi mooy ki nga xam ne mu yore moom mooy jëmmi xam-xam mu ngi peeg mboole mbootu yàlla bi kooku mooy Abdullahi moo tax yonent doon wax ne innama ana abdun akulu kama yakulul abdu man jaam rek la damay lekk ni jaami di lekkee wa ajlisu kama yajlisul abdu damay toog ni jaami di toogee su boobaa boo ñëwee nga yaakaar ne jaam la fekk du jaam dégg waaye kii xalifa yàlla bi la subhaanahu dégg nga wa taala mu ne wa aydan li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li arabiyin alladi irtajafa min haybatihi ak waxu yonentu sallallahu alayhi wa boobu nga xam ne dégg nga eh, sallallahu alayhi bu naan tëll rek ñu bëri seen fit yi dañ daan dem dégg nga benn arab dafa daje yonentu sallallahu alayhi wa mu tiit ndax wegeel bi yonent bi àndal xayba bi yonent bi àndal loolu dafay am am na nit ñoo xam ne boo jàkkaarloo ñoom rek da xam ne ñii am na lu yàlla def ci ñoom dégg nga da xam ne ñii am na lu yàlla def ci ñoom bi loolu amee nag arab bi bi mu gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek irtajafa min haybatihi nga gis na mu mel ni kuy lox yaa ngi dégg mu euh, xaw tiit ngir xayba bi nga xamante ne yaa ngi dégg euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ko àndal dégg nga xawu na aleyka dégg nga yonent bi sallallahu alayhi di ko dalal nag ne ko dellul ci sa bopp dalalal sa boppu yaa ngi dégg fa inni ibnu imraatin man benn doomu ab jigéen rek laa yaa ngi dégg kaana taakulu alqidida bi makkatin dégg nga benn doomu jigéen rek laa boo xam ne daf daan lekk seel dégg nga ca makka seel nag mooy yàpp buñ seel ba noppi wowal ko dégg loolu la yonentu doon wax jarul ngay tiit ci man jarul ngay am benn njaqar ci man man kenn rek laa koo xam ne as jigéen moo ma jur koo xam ne mu nga nekkoon ci màkka di lekk seel yaa ngi dégg mu ne wa aydan dégg nga li qawli sallallahu alayhi wa mu ne ak waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent doon wax ne allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahshurni fi zumratil masakin yow yàlla dundal ma ma nekk miskin yow yàlla eh, rey ma itam ma nekk miskin waaye yow yàlla dekkil ma itam ma bokk ci mboolo miskini dégg nga sallallahu alayhi wa loolu yëpp li mu ci doon jàngale duut ñàkk gi waaye mu ngi jàngale wéet bi nga xamante ne mbootu yàlla bi mu ngi ko nekk ci moom mu wéet ci mbootam yàlla boobu moom kese mu xam ne moom moo gàddu mboole mbootu yàlla bi amul lu yàlla di dogal ci kaw suuf lu dul ci moom la koy jaarale dégg nga te nit ñi xamuñu ko dégg nga kooku mooy dëgg dëgg miskin yàlla bi kooku mooy miskin bu mag bi dégg nga kooku mooy jirim bu mag bi itam nga xam ne Ibou Diouf daan na ko woy jirim bu mag bi wan wax ñu fuy sa makkaan yaa ngi dégg euh, radiallahu anhu dégg nga ak sallallahu alayhi wa sallam itam ndax euh, yonentu li doon ñaan yow yàlla dundal ma ma nekk miskin rey ma ma nekk miskin waaye dekkil ma itam ma bokk ci ci ci miskin yi su ko defee loolu mooy kii bi ñu bàyyi ci xel rek allahumma salli ala sayyidina muhammadin haqqa qadri wa miqdaari azim abonné ci notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay sigil kese loo doom si di